danañu jiitu ci sàppees xeex
xare yàlla nee na xam nañ ko wala qad alimna mustaqdimina minkum xam na ni ñuy jiitu li nga taxoon a wàcc ca bu jëkk ñoom buñ masaan di julli jigéen ñi di julli ca gannaaw léeg-léeg nag am jigéen ju rafet ju nekk ca gannaaw am ci gaa yi ñoo xam ne ñi daal dañoo xaw a doy waar ci ragal yàlla ñooñu doy waar ci ragal yàlla ñoom dañuy tuus di dem ba ca sàppeesu jiitu sa ngir bañ a gis ndaw soosu ñi nga xam ne dañoo ñeme yàlla nag bëgg a xool ndaw si dañuy arrière ñoom ba ca sàppee su mujj sa fab seen i bët borxal ko ci seen toqataan di xool ndaw si yàlla ne xam naa leen de nee na xam naa leen de xam naa wala xaddaale naa mustaqdim na ñuy awaasi ca kanam ngir bañ a gis lu araam minkum ci yéen wala mu wax daal na wala daal naa xam na nit mustaxiri na ñooy del ko gannaaw ngir xool lu ñaaw xool lu araam yàlla nee na xam naa leen xàmmee naa leen moo tax ñu ne kon nag tegtal li ci sappee bu nekk ci kanam rek moo ëpp yool ndax borom ah dafa jëkk a ñëw kon ñu ne bu dee jullee néew nag sappee bi ci gannaaw moo ëpp yool waaw xikma bi tax ñu def loolu nag yàlla moo ko xam wa inna rabbaka ni ki sa borom huwa moom yàlla yansuru moo leen fang innoo ni ki moom yàlla ak si mun ko àtte dëgg la alimun ko xam la wala qad xalaqnaa bind nanu al insaana nit bind nanu al insaana aadama min salsaalin noonu ko bind nit si banit bu wow koŋ banit mooy ban ban mooy suuf ak ndox bind nañ ko min salsaalin ci suuf ak ndox mooy suuf ak ndox bu ñu defar ba mbooy koŋ ne koŋet min amay nag mu bàyyi koo nag nekkit nag nekk nag ba nit mujj nag nekk tiim ba nit xamayin bu ñuul kukk ba nit boobee bu yàggee ba mu amee téeméeri at ak nit dañ koo bàyyi ba mu am téeméeri at ak nit daal di nekk min xamayin ñuul kukk mës noonin buñ nangoo soppeeku aha min salsaalin min xama in mës noonin buñ ko toggee nag mooy saxaar téeméeri at ak nit mu nekk ko salsaal téeméeri at ak nit mu nekk ko xama in téeméeri at ak nit soog a nekk mës noon nangoo soppeeku ñetti téeméeri at ak nit moo waral doomu aadama bu toqan saga demee ca ruxum ba day am téeméeri day am téeméeri bis ak nit moo remplacé téeméeri at ak nit téeméeri bis ak nit day am ñeent fukki fan nekk toqan ko màndiw am ñeent fukki fan nekk lumb am ñeent fukki fan nekk suux muy ñetti ñeent fukk du téeméer ak nit ñu soog a sañ a wax ni ndaw si ëmb na la jëkk téeméeri bis yooyu ak nit yetti ñeent fukk yi lépp mbéemurum doomu aadama ak mbéemurum lëpp ak bu xaj ak bu jaan ak bu fas ak bu mbaam yépp a nuroo formé wu fii baa ngi fi waaye yàlla defe ko ci ruu bu ruu ñëwee nag la koy nekk dem ci saw melo nag bu ruu ñëwee nag kenn ku nekk nag dem ci saw melo ñeent fukk yooyu moo tax am ñuy jàng bu nit dee ci la ñu teg ñuy jàng xulwa ñeent fukki xulwa ñuy def ñeent fukki xulwa ci par ñeent fukk yooyu lañ ko teg ñuy def ñeent fukk ak benn ñu ngi ko teg ci waxu imaamu Malik ne yàlla dafa tóor dafa bëgg lu tóol yàlla dafa tóol dafa bëgg lu tóol moo tax ñuy def ñeent fukki xulwa ñii def ñeent fukk ak benn ñu ne déedéet leetari xulwa leetari xulwa ñeent fukk la waaye boo limaalee sikkant ga ca ku fu am ñeent fukk la ak benn ñeent fukk la ak benn am ñuy def fukk ak juróom ñooñu baatee la ñu jël la ñu jàpp fukki xulwa ak juróom baatee lañ jàpp tam tam tam rekkate ah ñi répété wul nag dañoo jàpp baat ya mu toll ak huwa fukk ak benn ñoo ñuy def ci xulwa ak benn kenn ku ñu ne dafa am foo teg waaw ma ngay def defin la rek jaru xulo léeg-léeg nga gis daañu di koy werante ci armel yooyu jaru ko lépp a baax lépp a baax hum. moo tax xuloo boo booleeg aaye boo booleeg aaye yeeg laaya yeeg uruf yi juróom benn fukk ak juróom benn la moom la Cheikh Omar ni ah boo boole boo ko booleeg uruf bismillah rahmaan rahim juróom benn fukk la ak juróom benn moom itam mu ne loolu ku ko ñaanal néew dana texe juróom benn fukk xulwa ak juróom benn bismillah rahmaan rahim dix dix-neuf ak uruf xulwa muy juróom benn fukk ak juróom benn kooku la Cheikh Omar ibn Sayyid wax ah ah waaw waaw tabarkalla nee na boo ko ñaanal leen néew da nga texe ah boo ko boolee julli nag juróom-benn fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-benn lay texeel boo ko jullee ba yàggal ko ci say mbokk ak say xarit ak say am ci jàmm juróom-benn fukk ak juróom-benn ñëpp daañu sawi juróom-benn rakka bu nekk fukk ak benn juróom benn rakka bu nekk fukki xulwa ak benn onze ba ñuy six ñaata la soixante six waaw ah waaw ah noonu la di lu muy wax waaw masmoonin nee na wal jaana jaan nag moo di abul jinni te mooy iblis usool yi ñett lañu abul basar aadama abul jinni abul jinni jaan abul sayatin iblis jaanay maami jinne moo tax ñu koy faral di soppeeku usool yi ñett la abul basar abu sayatin abu jinni abul basar kooku mooy sunu mbokk mi aadama yàlla nee na jaan mi te mooy iblis mooy maamam xalax naahu bind nañ ko min xablu ci la jëkk aadama moo mag aadama iblis moo mag aadama maa ngi ko bind nag ni naari sa moom ci sawara woo xam ne amul saxar sawara yowmal xiyam xamoo ne amoo amul saxar day mel ne kuura waskur fàttalikul is xaala waxtu waxee rabb ko sa borom lil malaayka te ñeel malaayka yi yàlla nag ni malaayka yi inni naka man yàlla xaalixun aji bindi laa aji bindi laa bindaguma ko nag ismu faayil dafa nangu mustaqbal aji bindi laa basaran bindiif aji bindi laa basaran bindiif moo tax basar moo di doomu aadama aji bindi laa basaran bindiif fekk na xalku moom am bu yàgg moo tax mbindiif yàlla yéen noo ci gën di gone inni xaarixun basaran danaa bindi mbindiif min salsaalin maa ngi ko bind nag nag ci suuf ak ndox ba mu wow koŋ min xamayin ma bàyyi ko ba mu am téeméeraat ak nit ñuul mas noonu nangoo soppeek yéen malaayka yi nag yàlla nee na malaayka yépp a ngi rang taxaw ne kot yàlla ne dama ne mbindu moomu bu ma ko bindee fii saa sawaytu woon ndem yemale naa bindam ba woon nafaxtu ma dawal ak ruu woon nafaxtu bu jaagee ne wal wal gi nii wal déedéet woon nafaxtu ma dawal ak ruu fii ca mbind moom min ruu sa nag ruu dafa laaf yàlla yàlla dafa laaf pour teral ko pour teral ruu teral aadama saa yu ma ko defee rek bu leen xaarati dara bi nga xamante ni yàlla wax na leen lii ak bi mu ko bindee ay junni at wala ay millions yi at kenn xamul lu mu toll yàlla moo xam mun leen jamono yoo xamante ni fi saa sawaytu wa nafaxtu fii min ruuhi rek soxlaatul ngeen di ma tàggu soxlaatul ma di leen wax dara joxe woon naa ndigal faqaxoo faqaxoo baat bi ñu mosal ci tuuti jàngkati grammaire yi faqaxoo waqaxaa fi ne woon ci fiilu maal ba yàqaful ñëw di mu daarahuma faa gi di ko ci indi mooy isaa ji fi isaa saway tuho waqaxoo bu ko defee nag waqaxa yàqaw xa ñu indi ci faa gi nag muy fa xaxoo muy jawaab bi ah loolu bu xewee rek ba xaxoo rot leen saa ji dina ngeen di way sujjóot la woo ñeel ko la woo ñeel aadama moomu muy sujjóotu tahiyatin kenn ku nekk sëgg sujjóot waaye du sujjóotu ibaada fa sajjada sujjóot malaayikatu malaayika yi kulluhum ñoom ñëpp ajmahoon nañu sujjóot ci aadama ilaa iblisa ndareg naagukat ba ndareg lànkkat ba kenn naagu yërmande yàlla mu lànk moom ni du sujjóot ne lu tax jibril sujjóotul mikaayil sujjóotul te ñooñu kenn digal leen ñooñu ay ministre d'état lañu asraïl sujjóotul asraafil sujjóotul gënuñu maa foor ah moo tax yàlla ne ko loolu too sujjóot am kunta minal aalina da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo kawe di ay ministre d'état bokkuloo ci bokkuloo ci ah am na ñu koy firi minal aalina da ngaa bokk ca ah waaw am na ñu koy firi da ngaa bokk ca way kawale ko ñëw waaye njuum ca la. wallaahi wallaahi mu lànk rek abba mu lànk an yàkkoona bu nekkat maa saaji dina ànd ak way sujjóot yi lànk xaala suñu borom ne ko yaa iblisu ma yow yaa iblis yow naawukat bi yow maa lakk lu la dal maa mën naa ko lu la tere maa lakk lu la dal an an an an laa tàkkoona ba nekkuloo ma a saajidina ànd ak ñi sujjóot lu ko dal fii lu ko dale sujjóotal mu lànk moo tax ku ñu dëggal sujjóot nga lànk def nga loo xamul ma a saajidina aha ma a saajidina xaaral mu ne man lam akun nekkuma man akun lam akun jaaduwul ci man lam akun man weesu naa moo tax mu ne lam akun man kat waruma nekk laas bi da ngir ne ma sujjoot yellul may sujjoot li basarin ñeer benn mbindif man amul benn mbindif bu ma war a sujjoot ndax basar boobu la xalaxtoo yaa ngi ko bind min salsaalin ci ndox ak suuf ci bënit bu wow koŋ min amayn yaa ngi ko bind ci bënit bu ñuul mas noonu du soppeeku tey xëpp xam ne mën nga cee tabax lu la neex yàlla ne ko aha mu ne ko waaw waaw xaala suñu borom ne ko kon nag uxruj génnal uxruj maal maa doon xaraja mu daara yu ma day yuxruju uxruj bokkul ak rubaayu bu doon rubaayu danaan axraja yuxriju axrij génneel génneel bokkul ak génneel daa suñu góor gu suñu wàll yu jàngaleen xala axrij bi man fil bayti axrij bi man fil bayti daa saa waykat ba ba may wel te doon ma xaw a kontarale dama waye nag yaakaar ne moom daal kenn mënu ko findi ndax maw xam-xamam ñu ne alaaji maag nee na waxaala oxruj bi man fil bayt ma ne ko déet alaaji maari wàllu yu jàng la alaaji maari waxul oxruj de axrij la wax fekk nga ko de waaw waaw alaaji maari axrij la wax axraja yuxruju axrij xaraja yaxruju uxruj dañu ca way wax ah ah waaye daal ku la tuubal wala daa bëgg a tafeer uxruj minha génnal jóge ci àjjana fay naka naka yow rajimun ku ñu jàm tuuma nga ku ñu ŋàññ nga yu ne laanata na ci rëbb aleyka topp na la war na ci yow faw ila yawmi diin bal ci bisu fay ba xaala wax moom iblis si boppam yaa rabbi sa borom gannaaw atte nga ma ci nii nag man samay affaire teer na léegi nag saan fa mii muñal ma rek ilaa yawmi yub'asuuna bel ci bisub dekki ba borom xam-xam la yàlla ne ko mayuma la loolu de xaala yàlla ne ko fa innaka naka yow minal munsarina muñal nañ la ilaa yawmil waqt bel ci bis ba almaxloomi jawwalin bu jëkk ba dafa bëggoon nag nag buñ ko muñalee ba ca bisub dekk ba du dee day daal di ànd ak ñi dekki rek rungu dem léegi nag faaw mu dee looloo taxoon muy ñaan ilaa yow mu yub asoon yàlla ne ko ma yumala loolu ilaa yow mi waqtin maalum ma yumala bisu dekk ba de mayuma la ko kewal bu jëkk ba rek foofu laa la may nit ñi nit bu ko defee nag nga dee ba nit ñi dekki nga ànd ak ñoom dekki mu taxaw la ci ginaar nag fa innaka min al munsarin ila yawmi al waqti al ma'lum xaalam wax sun borom iblis ne yaa rabbi yow sa borom bi ma axwaytani sababu bewal gi nga ma bewal nag ba demee ca laraaf mu ne laa ux dana kii mu ne laa ut sayi na na danaa rafetal lahum ñeel leen fi laaxirati ci alaaxira ci mooy yàlla wala wax bi yàlla danaa leen dawal aj na yéen a mboole yàlla na ko du yëpp de mu ne ah xanaa ilaa ibaadaka ndegek say jàmmook la si na yow sellal sa wéetal yàlla mënum ci ñoom ñooñu de mën a lu ma leen dara yàlla ne xaala xaasa lii nag ma la wax yow yonent siraatun mooy sama yoon mustaqim wu jub wa ci man àlla yi ci man yàlla nee na ne ibaadi samay jaam nag ibaadaka jooju iblis di wax boo ko xamul moom laa la bëgg a xamal ilaa ibaadaka yàlla xam na jaam yi iblis xam na jaam yi yàlla yi xam na ko ilaa ibaadaka minhum muxlasina yàlla ne haasa siraatun àlla yi mustaqim li mu wax kat dëgg la sama jaam ñooñu kat loolu ñuy def kat siraatun allah ya mustaqimun yàlla nag ni yonent bi inna ibaadi samay jaam moo iblis la ko wax kon yàlla nag iblis inna ibaadi samay jaam samay jaam dëgg dëgg dëgg laysa sultaanun déet doole làkka ñeel alayhim ci seen kaw ine ibaadi laysa lakk alayhim sultaanu ine ibaadi laysa lakk alayhim sultaanu ine ibaadi laysa lakk alayhim sultaanu amoo ci ñoom benn kattan illaa li fi nekk man koo xam ne kabaaka topp na la nag minal xaawina te way weddi ña fii ma fii waaw wallaay fii ma fii fii ma fii ina ibaadi laysa lakk aleen sultaan bi nag addinu nasia baat yooyu daal boo ko bindee fukk ak benn def ko ci sa marchandise duwaañ bi ko ubbi bu ko seet waaw xanaa ñuy jàll frontière ak ñuy jàll frontière inna ibaadi laysa lak alayhim sultaan ndax duwaañ bi yow seytaane la ci yow dafa téer benn la waaw fukki woon a benn mooy suba waaw illaa li fi nekk man nga wax ni tabaaka topp na la mi ne xaawi na ca way bew ñi wéy na jaanama ni fi jaanama la mawidum randi wu ko day mooy jaanam aj nañu ne mboole laxaa ñeel na jaanama sabata bawaabin juróom ñaari bunt ñu ni juróom ñaari biirte li kulli baabin ñeel na bépp bunt gisoon ab xaaj minum ci ñoom ñi gëmul woon yàlla ab xaaj gisoon ab xaaj maqsoomun bu ñu séddale ñii ñooy dem fii yahood yi fii la ñuy dem nasaraane yahood yi gëmul dégg nga ñu doon jaamu xerab ñu doon jaamu musrikoon yi fii la ñuy dem nangam nangam ba muy juróom ñaar noonu lañ leen ko séddalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës di julli bilaala nekk li wax boobu la wax bii may bëgg a wax bilaala ko nekk li moo tax am na ñu naan bilaal waxul dara ah kay bilaal am na yu mu wax bilaal nee na yonent bi da doon julli ci jàkkay madina nee na nag bam jàngee fàtte ba pare nag laay ji la ñaare la moom la jàng way na jahanama la mawhiduhum ajmahin lawa laa sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsum rakka bu jëkk ba loolu la jàng bu ñaareel ba loolu la jàng gannaaw fàtte am na ndaw si topp ci gannaawam te yëgu ko ndaw si nag laay ji daaneel ko ndax dégg na arab ndaw si xëm yonent bi geesu rek dégg ndaw si yuux mu laaj ndox mu sedd sotti ko ci kanamam ba mu xim mi mu ne ko lii lan la mu ne ko lii nga wax léegi naway na jahanama la mawhiduhum ajmaina la a sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsum yaa ko wax yow ci sa bopp wala yàllaa ko wax yonent bi na ko yàllaa ko wax mu ne ko man day ni ma ko dégge mooy kon sama juróom-ñaari cër ñii benn bu nekk ñu lakk ko li kulli baabin bunt bu nekk ñu lakkal ma cëb cër ci sama juróom-ñaari cër ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yàlla day loolu la wax li kulli baabin minhum juz'un ma nga jëm cee nag ña doon wedd yàlla waaye noonu nga ko xalaat yi yonent na ko ba tey saawir la ba tey maanaa la mu ne kon naa man juróom-ñaari jaam laa am ci adduna mooy sama alal bunt bu nekk goreel naa ab jaam ngir mucc ci bunt ba jibril na cëpp wàcc ni ko ni ndaw soosu rek ne ko juróom-ñaari buntu sawara yëpp mucc na ci wubbil nañ ko juróom-ñaari buntu àjjana li kulli baabin minhum juz'un maqsuumun waaw nee na inal muttaqina fekk na nañ ñi ragal yàlla fi jannatin ña nga ajjana yoonu ña nga ca ndox mayawal ñu naan leen udxuloo tabbi leen est-ce que boo gisee mu ne inal muttaqina fi jannatin yoonu mu jëkk a wax loolu toog ni udxuloo ñaari send la yoo xam ne ci la ñuy jëkk a naan sanku ca ñu soog nag ni bala ngay dugg ajjana da ngay sangu ci ci loolu ci ngay sangoo ba set nag ci ngay sangoo soog a dugg ajjana mu ni gannaaw sangu leen ba noppi nag udxuloo moo tax ma inal muttaqina fi jannatin wa uyunin udxuluha tàbbi leen ajjana bi salaatin bi salaamin ci jàmm bi salaamin ci jàmm yaa salaamu salim salim aminina ngeen di woy wóolu wa nasaxnaanu dindi nag maa bi su dorim la woon ko suñ biir dënd yi min xilin ci mbañeel min xilin ci toxor bu ma ko dindee nag ñu soog a nekk nag ixwaanam feeg toxor a ngi ci diggante ay nit war ñoo employé seen diggante ixwaan ndax dégg ngeen wax ji ñooñu ixwatun la ñu wante duñu ixwaan ay nit buñ dee xastante di añaanante di soxorante duñu ixwaan ay ixwatun lañu te ixwaan mooy mbokki jullit te saaru ali imran aha ña bañante woon ba mu ko dindee mu ni yàlla def leen ixwaanan waaye li fekk nañu ñi dañu kët du doon ixwaan ñu ngi koy employé ci diggante ay jullit yu bëggante foofu lañ koy employé li ci des nag ixwatun ay mbokk lañ rek yor a doon ixwatu yusufa rek ixwatu yusufa rek waaye ixwaanu yusufa déedéet déedéet aha waaw meneen njàngale nag ci biir njàng aha aha nee na nag ixwaanan foofu la ñuy nekkee bokk mbir mu ñu nekk di ak bokk nag man hum ana ñoom mu ne ñooñu kat allah surri na ña nga ca kaw lal ya mu taxaabile na mbir mu ñuy jàkkaarloo kenn ku nekk yaa nga xool sa kanam ak moom laa yaa ma sum duut leen laal na sa bun coona fii yaa ci àjjana wa maa hum ta déet ñoom bi xaar yi na ñuy génn ci min ha bàyyi ko àjjana jeex na dugg nañu te dootu génn moo tax benn aalim doon na jame ne bunt bu amatul njëriñ ñu ne ko buntu àjjana ndax kenn dootu fa jaar bu ñëpp duggee jeex na kenn du génn dañu génn déedéet wa maa hum bi muxrajiina aha yàlla nag ni jaam ñooñu nag inna hibaadi laysa laka alayhim sultaanun aha nabbi yàlla ne yonent bi nabbi waxal ibaadi sama jaam ñooñu anni anna ñetti yarut yépp dellu ci yàlla nabbi waxal solool ibaadi sama jaam ñooñu man yàlla anni man yàlla anna man ni alxafooru na leen wóor ni maay kiy jégglay bàkkaar maay kiy suturaal jaam rey mi maay ki taxawal ma seetal waay ibaadi anni anna te lépp xafooru rahim te ba ah yàlla loolu ah aka doy waar tey bii laa doy waar nee na waa na asaabi sama mbugal nag sama ñeel na ngi mooy yàlla woo moom al asaabu mooy mbugal ga al alimu ba di metti nee na wan nabbi hum kan lay waxal yàlla ak waxal yonent bi ci moom yonent bi la lamar gi dellu hum ji nag fan la dellu nabbi hum waxal sama jaam ñooñu ma nga dellu ca jaam ñi hum jëm nga dellu ca jaam na aha wa nabbi hum wax leen rek loolu wóoru waxal sama jaam ñooñu hum jaa nga dellu ca jaam ña nee na wax leen an dayfu ibrahima nganu nganu nganu ibrahima ga ngani ibrahima ga ndax dayfu baat la boo xam ne moom abdu wooyam day toogee talaatu jamu su wéetee ko wax ci téeréem bañ naan misar dayfu gani ibrahima ya dooni ganub ibrahima ya gani ibrahima ya baat la boo xam day nuru mufrad tey jamu gani ibrahima ya muy ay malaayika doon fukk ak ñaar wala fukk wala ñett borom xam-xam yi nag ne ngan limitub ngan ñetti fan berndeel gan ñetti fan lu ca topp nag sarax la gan bu amee ñetti fan na jàppum xëy wala mu jàppum ngont ah dafa am ñaari ñu doon sëy jëkkër ak jabar benn way a gane si yéen yàgg fa lool yàgg fa lool ñoom rey nañu xar rey bëy rey ganaar dugg nañu marché def nañu lu ne mu nekk fa rek ba yàgg jabar ji ne ko xam nga na nii def nan jekki ba mu toog rek nu songoo xeex jekki ba gan gi toog rek ñu songoo xeex rek gan gi ñëw di leen atte jabar ji ne ko jé- jëkkër ji ne ko maa ngi giñ ci feeg ngay xëy wala nga gont waxal sama jabar ji mu bàyyi ni yàlla wu mel gan gi ne ko maa ngi giñ ci ni feeg déwén alors que mu ne nag ngan ñetti fan wala mu ne ngan ak xuuf istaxaloo waxtu wa ñu tàbbee ale ci Ibrahima fa xaaloo ñu ne salaaman jàmm salaamu aleykum xaala wax Ibrahima ah innaa nun day wajjuloon wajjuloon a ragal nanu day minkum te yéen man di ñemewuma leen xaayifoona minkum muy malaaka ya xaaloo ñu ne ko laa taw jalli bu ragal waaye innaa ni ci nun nun rusulu rabbika sa ndawi borom lanu ay malaaka lanu ñu dee ko ko rusulu rabbika nu basiruka noo dan lay bégal si ah bi xulaamin ci aw sorowoo wala jur xalli min wu am xel tey borom xam-xam muy isaaka fekk na ismaila am xaala mu ne abasartu moom yi ndax da ngeen may bégal ci doom allah an masaniya te man laal na ma ci bëru mag léegi mag laa de fa bi ma ci lan ku bésiroo ne ngeen may bégale istifaamu taxjib istifaam dafa am taajub am inkaar am taqrir am tawdiix xaaloo ñu ne ko basar naa ko noo ngi lay bégal la bil àq ci dëgg falaa takun bul nekk mi ne xaanti na bokk ca way naa ko ña doom xaala wax ibrahima xaala wax kon ah laa man kat duma naagu wa man yàq nat nat wa man yàq nat dee di naagu ni rahmati rabbi ci yërmande yàlla ni da nga amaat li nga bëgg ila laaloon nag du ko def lu dul yéefar yéen kon nag man naaguuma qaala fama xatbukum ayyaal mursaluuna ibrahima nag ni xaala wax ibrahima yéen fama xatbukum luy seen tont maa saanukum luy seen mbir luy seen tont ayyaal muy mursaluuna yéen ñi ñu yónni xaaloo ñu ni innaa niki nun ndànk rek ursil naa yebalees nanu ilaa xawmin ci nit mujrimina ñu di yéefar te mooy nitu lóot ñi dana leen di alagi dana leen di alagi mu ni aa ñëpp mu ni ilaa ala lootin setti ilaa xawmin mujrimina ilaa ala lootin ilaa mraato setti ci biir setti sett ci biir sett isbaat buñ ca settee dara nafi yu buñ ca settee dara isbaat la isbaat buñ ca settee nafi yu la ci grammaire ñu ne ilaa xawmin mujrimina ilaa ala lootin mun leen loot day ndax da ngeen alak réew moo xam dëkk boo xam ne ñetti téeméeri jullit a nga ca ñu ni ko ah kay ñetti téeméeri jullit réew mu ñu nekk duñ ko alak mu ne ah njandi loot de ñetti téeméeri jullit a nga ci ñu ni ko lool rek mu topp ko ñoom ban leen kenn nga fa ndax da ngeen alak dëkk bu benn jullit nekk mu ni ko loot de nga ba te jullit la ilaa ala lootin innaa ni ki noonu la mu najjoom daan leen musal aj nañu ne mboolem mboolem ñëpp gëm daan leen musal mu ni ñëpp mu ne ah setti ci biir setti ilaa am ratoo mbirek jabaram ja nag jabar ja moom du mucc de xaddar naa dogal nañ ko innaa nekk moom ndaw sa muy waayi la la minal xaabirina bokk na ca way sëmb ña bokk na ca way xalaku ña faramaa jaa ba nga xam ne dikkal na ñoom malaayka yi aala loot ñoom loot dikkal na leen mursaloona mooy faayil bi ñu yónni ña xaala wax la leen ñeel leen innakum naka yéen xaw mun aw nit ngeen mun karoona loot ni yéen day nit ñu kenn xamul ngeen yéen fu ngeen dëkk xaw mun mun karoona xaaloo ñu ne ko nun de xaaloo ñu ne bal ji naaka dikk nañ la bi maa kaanoo ci la nga xam ne nekkoon na ko yem toroon nekkoon nañ yem toroon na doon ko werante ñoom saw nit fii yi ci lañ doon werante waa tey naaka tey ji dikk nañ la bi dàq ci dëgg way naa ne ko nun la saari xoona way jëf dëgg la nu way wax dëgg la nu léegi lépp fasri rañaaneel bi ahlika ci sa ñoñ bi xet in ci guddi waxtu ci guddi xit in dogit min a layli ci guddi wadda tappal nag boo rañaanee nag tappal nag boo tey dina tappal adda baaram na nga topp ci seen gannaaw na nga topp ci seen gannaaw toppal ci seen gannaaw toppal ci seen gannaaw toppal ci seen gannaaw ndax ko des gannaaw nga xam ko moo tax Moussa ba muy dem seen ndéey la waaw bu fekkee ñoom ba muy dem ca ndee la ah gaaña dañoo Moussa dafa jiitu yàlla yett ko ne ko ba ma am jalaka am xaw ñu ko yaa Moussa yedd googee mu ko yedd nag moo tax ñu ni kilifa dafa war a topp ci gannaaw wa ma am jalaka an xaw ñu ko yaa Moussa ah lu la gaawtuloo an xaw ñu ko yaa Moussa xaala humu ulaay ala asari ñu ngi fuukat alaasar yi sama gannaaw ngeen yi moo tax yonent yi ba muy rañaan dafa dawal ñëpp ba kenn desul ca dëkk ba lu dul moog sidna Ali loolu moo ko waral ah ñëpp dañoo dawlu dem Madina ñëpp dañoo dawlu dem Madina ba mu des moom moog sidna Ali rek ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo des Makka ñëpp dem nañu Madina ah nee na nag wala yaltafit bu xiintu ahadun kenn bu geestu ahadun kenn ndax bu geestoo da nga gis lu metti li leen di dal min kum ci yéen wamloo dem leen wuy leen ay toomaroona fa ñu leen digal fu ñu leen digal mooy saam waxat day naa nu wax yu ilayhi ci lóot saalikal amra moomale mbir nu wax yu ko saalikal amra moomale mbir ata si bayaan la mooy amra ji ci saalika anna daabira lim ko waxi mooy anna daabira haawlaay maqatuun musbihin anna daabira haawlaay ñoom mujj ci ñooñu dañ koy alag di leen alag ba ñu ca mujj ba alag seeni sët mooy ana daabira haawlaay ña juddu gannaaw ñooñu ana daabira haawlaay ña am gannaaw ñooñu ca mbooloo te mel nañu meloon moo di daabira ana daabira haawlaay maqtoohum ñu ñu dagg seeni ngirt lañu maqtoo ñu ñu alag lañu mos dee mbir man ci waxtu xëy seen wa jaa ñëw ahlul madinati ñi dëkk ba nag muy madinatu sotoom am na ñu jàng Sodom aha yastabsiroona mbir mu ñuy sàkkoo dég ca gan ña kii jàpp Jibril ne mooy as ndawam kii jàpp Mikaayil kii jàpp Israfil Israil moom ñu ne ko kuy rocc ruu kenn du ko may permis yow doo dem xaala wax Luut ni waa jile ina xaawlaay ñii day fii samay gan lañu day fi waxoon naa leen ne baat la boo xam ne day toog palaasu jàmm aha fala taf dafa ne bu leen ma gàcceel ci sama gan ñi ay wàjji wa taqoo ragal leen laa yàlla wala tus wala tuxsooni bu leen ma gàcceel xaaloo ñu ne ko awalam nan xàkk ndax tere wun la woon anil alamina ngay daloo mbindi fii tere woon nan la ci mbindi fii xaalal loot ne xaawlaay ñii daal di joxoñ doom yi jigéen yi bannaat ci samay doom lañu te doom yi ñi ngi rafet in kuntum dem nekk ngeen faayilina bëgg a sëy faayilina ngeen namm li ngeen namm nga xam ne da ngeen a bëgg a sëy dong xaawlaay bannaat yi in kuntum faayilina ñu ne ko maalana neeru nu gisa doom yi fi aqin min bannaatika innaka la taxlamu ma nuridu xam nga li nu namm kat kon na wax ju mu tëgg guddal moo tax góor jigéen ñi li yàlla bind ñaar rek ko ciy def ñaar doomu aadama ak mbaam doomu aadama ak mbaam da nga gis xar du tëb moroom ma ci góor ak góor waaye du sëy day fa day caaxaan rek mbee mbeej rek lay def waaye sëy dëgg-dëgg moom ñaar rek koy def góor ak góor góor sëy ak góor doomu aadama koy def wala mbaam keneen du ko def keneen du ko def keneen du ko def ah wax na ca saaru soora ndax da ngeen koy bàyyi li yàlla bind pour yéen wa tasaroona maa xalaqa lakum rabbukum min aswaajikum mbaam dana ko def carrément mbaam dana ko def loolu moo tax yàlla dafa formal jigéen jigéen bu labee ci géej boo demee da ngay fekk mu këpp malaayka yee koy këpp waaye góor bu labee da nga koy fekk mu jaaxaan jigéen bu lab boo ko seetee da ngay fekk mu këpp doo fekk mukk mu jaaxaan da yàlla bëgg ci ñoom sangu da yàlla bëgg ci ñoom sangu seen ñàkk sangu day yàq réew danañ ci wax na ko ci hadiisu qudsi jigéen ñi bu ñu sanguwul suuf nee na du ma sangu gàncax du ma sangu bu jigéen ñi nanguwul a sangu mayit du ma sangu yàlla nag ne yonent bi la xamruka moom la wolof naan sa bakkan la xamruka kitaabun li nabi la xamruka diñ naa ci sa dund la xamruka sa bakkan sa bakkan sa bakkan yow sama bakkan wala sama bakkan wala sa bakkan wolof dana ko di wax la xamruka indoom naka ñoom la fi sakr yaxamoon a ña ngay dénk dénk la fi sakr siin ci seen manditam réer mandite yépp mandi ci daraja ci yées ak mandi ci réer réer ba mandi ci réer ga ahan doo laaj te buñ laa biiree wax la doo dégg te boo déggee doo jëfe faaxa sa doon jàpp na leen sayatu yuuxu jibril jibril a yuuxu rek ñëpp alal musriqee na mbir moom jënt buy tànk mbir moom tànk te seen yàlla nee na jaal naa fa jaal naa def nanu kon fa jaal naa def nanu aliya lépp lu féete woon kaw ci doomu aadama saafilaha moo féete suuf lépp lu féete woon suuf aliyaha moo féete kaw fa jaal naa aliyaha saafilaha fa jaal naa saafilaha aliyaha lépp lu féete woon kaw féete na suuf lépp lu féete woon suuf féete na kaw ban ko defee ba noppi nag waan tar naa nu soog a taw nag ijaaratan taw doj àll yi ci seen kaw doj yoo xam ne ñu ngi ci jiir dañ koo posene ca safara ñi doon góor jigéenu leen loolu lañ leen def ñi doon góor jigéenu loolu lañ leen def moo tax yàlla bañ na ko ina laaya sim ne koy kéemaan fi saalika doy na ci loolu lil mutawassimina ñeel ña ñuy mandargaal ci xel lil mutawassimina ñeel ñi am xel tawassimi mooy moom mooy ñi am hilmu firasa mooy ñi nga xam ne dañuy xool nit rek xam ci moom loo xam ne day mel ne dañ leen a wax yu wala ñu xoolul nag xam ko ca wala ñu xool fas xam ko ca xool nit rek xam ci moom loo xam ne kenn waxula ko dafa am ñu xam am xam-xam yooyu ñu ngi ko tuddee ilmul firasa xam-xamu firasa dafa amoon benn waaye bu jëndub jaam di ko yóbbu këram ba ci yoon bi jaam bi ne ko man mi nga jënd de aw ma njëriñ lu dul am na ñetti xam-xam yu ma xam de xanaan waaye lu dul loolu de aw ma ci leneen njëriñ mu ne ko loo xam mu ne ko xam naa fas xam naa lem xam naa nit ba demee ci taskiratu ulil albaab ma nga fa xam naa fas xam naa lem xam naa nit naka ñu yàgg na ñu toog ba am ay fan sang bi bëgg a jënd fas na ko kaay seetal ma fas wi mu ñëw wër fas wi xool ko na ko fas wi dee ku ko jënd moo lay rey ci gannaawam lay dee mu daal di bàyyi keneen jënd fas wa war ko fas wa daaneel ko mu dee mu ne ah sama jaam bi kat li ma waxoon xam na fas kat jekki ba mu yàgg ñu andi fekk lem lem gi yomb lool te neex lool ñu ni lem gi daal baaxul nii mu yombeeg ni mu neexe ñu jënd ca lem ga nag ñu naan lem gi fu mu jógee ba yàgg ñu dem enquête ci ka doon jaay lem gi na ko foo ko jëlee fekk laaj na jaam bi jaam bi na ko lem gi day ci bopp nit la ko yomb yi lem ñu enquête ka ko doon jaay mu ne ah mën naa wax dëgg de ndax lem gi ñu ngi ko jëlee ci am lëm moo xam ne dafa amoon ku dee ñoom du ñu suul ñu def ko ci lëmm yemba ya dugg fa lem ci mu ne lem gii mu mos ci bopp nit lañ ko lem mu des nag lem mu jekki ba yàgg nag mu woo ko ci nee ba tëj ko ne ko man dafa am ñuy wax ci man dama la koy laaj mu ne ko lan la mu ne ko ndax ci ñu ma bàyyaleel moo ma jur wala doomi leneen la mu ne ko juru la de maa yow rekk fi nekk yàlla waaye wax dëgg juru la sa bàyyi melul nii ñu woo ndeyam waa jaa ngi toog mu laaj ndeyam mu ne ko wax na dëgg dëgg dëgg neex ba naqari kii juru la kon nag li waa ji waxoon ne xam na ko ñu ne dafa amoon xam-xam bii ilmu tawassimin ilmu firasa la am ilmu firasa ah waaw moo ilmu firasa la jabala jabala jabal Seydina Omar yàlla da ko joxoon xam-xam yooyu wa innaha njandil lóot la la bi sabili nekk nañ ci yoon muqimin wu nooy nepp nit ñi jaar nañ ko ba mu nooy la bi sabilin muqimin tariqe xur mooy yoonu xuray si jëm saam ina laa gis ne rek kii moom si saari koy doon na si loolu lil mu'minina tey nag waxul lil mutawassimina ñii nag ñoom dañoo gëm yàlla laayatin bale nag nee na lil mutawassimina nga xam ne dañuy seetlu settantal mën nga cee amee xam-xam ndax yuhrabu sayun bi sayin lil muminina wa in kaana ndem nekk na asaabu laykati ah ay gox ba nga xam ne ci la garab ya newoon in gi nag mu xafaf la way naxoo luy dëgg tey dëgg kaana nekk na asaabu laykati waa gott ba borom gott ba mooy mu jege maddeena mooy nit yonte yàlla suufay bu ña la zaalimi na ñoom itam de bokkoon nañ ca kàcc kat ya bokkoon nañ ca way tooñ ma tooñ bi yëpp mooy kàcc fantaqam naa nee na bugal nanu minum ca ñoom waa nitu suufay bu ñooñu le wa innahuma niki njandi lóot la ak ay fata ak waa gott ba ñoom ñaar la tasmiya la bi imaamin ñi ngi ciw yoon mu biinin wu leer wu ñu xam yéen waa makka nee na wala xat dëgg la kasaba dëkkee naa weddi asaabul ijri ñi xu ña dëkkoon ci xurwa xurwa dafa bari doj ci diggante madina ak saam te mooy waa sàmmoot ya mooy tabaxkat ya mooy jàmbaar ya mooy liggéeykat ya tabax nañ ca réew mi junniy dëkk ak juróom-ñaari téeméer muy waa Samoot ñooñu le ñoo dëkkoon foofu le ca diggante Madina ak Saam ñu tudde leen asaabul hijri ndax da dañoo dëkk ca xurwa xurwa ay doj wër ko ar mursalina wala xadd kasaba ji foofu la jëm al mursalina ñi ñu yónni woon ñu ni waaw lu tax mu ne al mursalina te ñoom kenn rek